nii tey jii dara këfu leen que Diomaye Faye nekk candidat Ousmane Sonko bañ a nekk candidat amul kenn comme ci yëngal ba nga xamante ni dina tàggoog sagoom wala dina saalit déedéet au contraire dañoo gis ni li nekk ci kanam moo ëpp solo liggéey bi nekk ci kanam dañ ci simb moo ëpp solo kon nañ ci def focus nañ ci sëgg def kat diñ ko a defaree ba nga xam ne li ci am solo am solo rek mooy jeexital bi Sénégalais yëpp jox ci mu nekk loo xam ne dina am changement ci seen ëllëg ak seen jëmtukaay gis naa ay ngit yu bëgg Sénégal gis naa ay nit yu bëgg réew mi Ousmane Sonko ak Diomaye gis naa sax ma dolli la ci ne gis naa Cheikh Omar Diagne moom tamit ndeysaan qui était très enthousiaste ba nga gisee moom tamit mu fàttali ne man lii yëpp bëgg réew mi ma leen ko teg te gën naa ne waa réew mi fàttewuñ loolu waa réew mi dinañ gën a gën a téye loolu gis naa ñaar ñoo xamante ne ni incha allahu seen yéene si Sénégal bis bu concrétiser woo Sénégal dina am benn xar kanam si saayir ak en tout cas daal li ma mën a wax mooy. Mhm. sama xel dal na boo fa génnee. Mhm. gën naa am yaakaar. Mhm. gën naa gën a am pasteef pour li nga xam ne mooy projet bi ñu gën cee taxaw pour man pour mën a pour mën a pour mën kaa pour mën kaa jëmmal. ba ma fa génnee daal génn naa fi avec l'esprit ragaillardi génn naa fa avec le sentiment. que incha allah on va y arriver. pour dina naa fi avec beaucoup d' espoir que le Sénégal va gagner en deux mil euh, euh, en février deux mille vingt quatre. pour projet bi gën a yaatu aussi euh, yàlla def leen ngeen jël réew mi est ce que yaakaar nga lii ñëpp di laam-laamee fi mu ne nii mooy Ousmane Sonko fu mu joxoñ ñoom waa Pastef loolu la ñuy wax foofu la ñuy xool est ce que yaakaar nga aussi Ousmane Sonko joxoñ ne Basirou la. waaw xam nga moom laay wax dama ni comme joxoñagul. nañ ko déglu rek xaj na fan yii ñëw dina joxoñ waaye dama ni. dama leen wax Ousmane ko ku mën a joxoñ kooku la. parce que xam nañ ni joxoñam du leen lu dul tegu ko teg dina am ay nu mu yoo xam ne ci bëgg réew mi la koy teg. dina am critères yoo xam ne dina ko apprécier xam-xam koy teg. dina am critères yu apprécier yoo xam te ni dina teg ci nit ki nga xamante ni moom la yaakaar ni moom moo gën ci réew mi kook tamit dina ko teg ci ay valeur maanaam kooku am nitu valeur la nitu principe la travailleur la bëgg na réew mi. kon moo tax man la tiituma man gis naa ni fépp fu mu joxoñ rek incha allah mooy fi gën. parce que lépp lu mu def jàppale xalaat na ci bu yàgg avant muy dugg fi nga xam ne dugg na fi. te incha allah fan yi di ñëw dina gën a leer fi ñun dina gën a leer ci sénégalais yi. te mm-hmm. euh, di xam ne Ousmane Sonko. macha allah yal na ko yàlla lafal cat parce que euh, xelam sell na xaatam sell na mais bëgg réew mi tamit dëggu na bëgg réew mi tamit dëggu ci moom te loolu ñun xam nañ ci dara te ki ma gis tey gën ma gën na maa gën a yokku courage gën na maa gën a yokku euh, détermination gën na maa gën a yokku pas-pas pour li nga xam ne moo nekk sunu kanam ñu jëmmal ko. mais levée de fonds amoon na euh, fan yi passé gis nañu ba tey ji sax yéen a ngi ci. Euh, mu mel ni alal ju takku lañ doon dajale ngir mu nekk ci ginnaaw Sonko président mën a jàpp ci eh, élection yee campagne bi yeneen est-ce que yoon may na leen euh, bu Ousmane Sonko ne kii laa désigné mooy sama candidat est-ce que yoon may na ngeen jël alal jooju déployé ko ci boobu candidat. waaw foofu damay fa damay damay rectifier alal ji lépp lu ñu mën a def muy campagne de levée de fonds yaakaar naa Ousmane Sonko sax discours yu mu pëpp ñu mës def. Mm-hmm. pour lever des fonds lañ ci jublu woon mooy ñu financer les activités du projet. d'accord kon tey jii nee naa le projet a trois candidats au minimum. te mhm. gëm naa ni sax yeneen candidats dinañ ñëw rejoindre ñu. am nañ ci yaakaar ne yeneen candidats dinañ ñëw rejoindre ñu parce que le projet bi dafa yaatu yëfu Sénégal la ak yëfu sénégalais yi. kon bépp loo xam ne récolter nañ ko ci en terme de fonds pour financer la projet yaakaar naa waxuma la sax. candidat wu candidat wu bi nga xamante ni mooy Habib Sy wala Cheikh Tidiane Dièye wala mu Bassirou Diomaye Faye mais beneen candidat de l' opposition sax am nañ droit jàppale ko si parce que li am solo rek mooy ñu xàccandoo dóorandoo te lébu dañuy wat gaal yëgoo. Mhm. Déthié Fall jàpp nañ ni si Yewwi Askan Wi la bokk kon ba tey il est porteur de notre projet parce que la projet que Pastef porte est valable également pour le même projet que la Yewwi Askan Wi déroule. kon am nañ yaakaar ne lépp luñ fa jëlee war na mën a jariñ képp kii candidat boo xam ba bëgg na Sénégal doxal na Sénégal a gis bokk na gis ak Ousmane Sonko te ànd na ak Ousmane Sonko ci li nga xam ni yàgg nañ ko xeex te allah dinañ ci dinañ ci am dam mais foofu da nga may may. Mhm. ma ma rendre un hommage. Mhm. un hommage mérité à la diaspora sénégalaise à tout le peuple sénégalais mais surtout à la diaspora. sénégalaise tey jii sama xol dafa sedd tey jii campagne de levée de fonds li nga xam ne sunu mbokk moodu moodu yi dund nañ ko si euh, taxaw nañ ci en terme de mobilisation taxaw nañ ci en ak avec la détermination qu'il faut taxaw ñu andi yaa nga wax ne xaalis bi takku mais xam naa ni ci ñoom sax takkul parce que ñoom seeni objectif romb na lool te incha allah yooyu objectif dinañ ko atteindre maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ne ñoom fàttali nit ñi bëgg sa réew mooy lan ñoom wax nañu ne en réalité politique activité Euh, xaalis bi koy financé i ñi nga xamante ni ñoo ko seq la war a jigéen mais pas nit ku ñëw rek jëlee fële ay milliards wala xa kenn xamul fan la ko jëlee ñëw di wax ni maa moom parti wala man maay financé activité parti kooku bu fi nekkatul xam ne boobu parti na sax na. Mm-hmm. tey bu fekkoon woon ak Modou Modou yi seen taxawaay au niveau de la diaspora au niveau international en terme de communication en terme de mobilisation auprès des instances internationales xam nga ni Modou Modou yi am na lu am solo loo xam taxaw lañ ci mais yamuñu si loolu. dañ fa kii woo seen mbokk yi nga xam ne ñoo ne fii ñenn ñi mu jaral leen ñu jël avion daggal leen des billets d' avion qu'il faut def les déplacements des milliers et des milliers de kilomètres ñëw taxaw ne leen dañuy jëmmal projet bi te non seulement dañuy ñëw battre campagne fii ci pré campagne bi comme ci campagne bi te bu élection yi desee ñaari fan ñetti fan dinañ delluwaat Europe sa fañ nekk wala feneen fi ñu mën a nekk ci àdduna bi dem dañuy voté pour wax la war nañ xarkaram ne ñu nit ñu bëgg réew mi lañ ma tamit aux Sénégalais qui sont ici à l'intérieur du Sénégal xam nga lu ma gën a neex ci mbir mi coro mhm. da ngay gis ay prisonniers yu nekk sa kaso ba di def levée de fonds di génn xaalis di ko jox di ko ko di xam nga ne loolu daw na yaram. Mhm. xam nga ne loolu loolu c'est un message très fort. Mhm. lancé à l'endroit des acteurs politiques mais également à l'endroit même de l'opinion internationale. mais mais mais Pastef a été une une une pour la démocratie imaginez un tey jii porte trois candidatures yamuñu si ñu taxaw même nekk prison au dans au fond de leur cellule di ko di vivre dignement mais teewul ñu ngi toujours présent aux activités du parti par le la cotisation à travers les cotisations euh, à l'occasion des des Nécotous xam nga safar la à l'occasion de des de fonds pour wax rek ne ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ci li nga xam ne moom la gis di sant yàlla ne déterminé tey jii dañ wane nañ beneen xar benn benn benn dëgg réew bu Sénégal te dina nekk cant si Sénégal ba nga xamante ni lépp lu ñuy defee politique rek incha allahu mooy tegal nañ ko tegal nañ ko Sénégalais yi mooy yoon bi nga xamante ni nañ ko les génération futures pour ba nga xamante ni ëllëg dinañ xam ni politique yëfu ko diñ politique yëfu jaamukatu yàlla la. ñu dañuy jaamu askan wi. waaw politique nekkul sàcc alalu askan wi wala di jariñoo askan wi. électorat bu PDS ñu xam ne ñoom naru ñoo dem ci yile élection ku ci nekk di soxla seen électorat est-ce que yéen pare ngeen pour teg ay jéego giseek ñoom mën a booleek ñoom ndax doole ji yokku. waaw xam nga tamit il faut ngeen nangu ne électorat PDSO électorat électorat APRO électorat euh, PASTEFO électorat yi ay sénégalais lañ rek. il faut ngeen comprendre sénégalais yi ñoom moom seen bopp ñoom ñooy voté xool ku leen neex tey jii nañ d'habitude am na ay enquêtes yi ko doon révélé ne am na si 60 pour cent de décision au moment de la campagne wala juste après la fin de la campagne mooy ce qu'on appelle les indécis kon gis nañ ni électorat bu fi mën a am seen peuple si am solo ba am solo politiquement parlant effectivement foofu d'accord naa si ak yéen il faut être intelligent te kon PDS yaakaar naa bi nga xamante ni àndoon nañu ak ñoom ci élection législative yi par le biais d'une intercoalition boobu PDS yaakaar naa dinañu ñëwaat toog waxtaan te incha allah ñu ngi def jéego ah, ñu ngi def jéego yi pour toog ak ñoom waxtaan ak ñoom te am nañ yaakaar ni dina sotti am nañ yaakaar ni incha allah dinañ ànd parce que man gëm naa ni tamit waa PDS ñu war ñu bëgg réew mi nañ ñun tamit gëm nañ ni ñoom liñ jot a jaar ci réew mi en terme d'expérience ah liñ jot a jaar ci réew mi dénk nañ ko. ba pare ànd ak ñun ci kóolante ci élection législative bi gis effet bu mu def gis résultat yi mu def gis nañ ne loolu ñoom te dinañ fexe ba loolu du nax saa yi. Euh, ma moo wax foofu nag man rek la engagé. PDS ñëw rejoindre opposition bi je pense que moo gën sax pour l'avenir du PDS que muy xool feneen ñoom nag ñoo moom seen liberté mais am nañ yaakaar ni dinañ xool fi nga xam ne moo baax joxoñ bi nga xam ne moo gën ñu jaar ci yoon boobu parce que tamit Sénégal ñun ñëpp a ko bokk benn dëkk la kenn mënu ko Euh, waaw maître peut-être que mu doon benn question bu mujj euh, dañu gis euh, sànq wala sax ni ki démb ci yenn site yeeg wala sax am na sax yenn waay politique yuy wax ci wàllug Bassirou ñu mu gis it Guy di wax ne tout ce qui arrivera à Bassirou Diomaye Faye en prison sera de la responsabilité de de de de, de l'État et autres euh, Bassirou Diomaye en danger waaw xam nga peut-être information yi Guy Marius Sagna am ak source am peut man awma information yooyu yëpp waaye dama ni euh, li Guy Marius Sagna war a tax wax euh, wax rek waroon na tax ñu bàyyi Bassirou Diomaye Faye mu génn. Uh-huh. parce que candidat bu fi déclaré wu wala ñu ngi accepté sa candidature li leen njëkk wax mooy sa sécurité. yaakaar naa gis ngeen ni candidat yëpp tey jii bu ñu génnee seen kër li ngay gën a gën a gis mu gën a fës li den nag ñoom mooy seen asar doo gis ñu ànd ak seen njaboot doo gis ñu ànd ak seen i soxna doo gis ñu ànd ak seen xarit seen sécurité la ñuy àndal kon nekk candidat sécurité la gën a àndal gis nga fi d'ailleurs ay dëkk yoo xam te nii boo xasee ba sa candidature officielle wala ñu rek recevoir ka rek état bi nga xam ni moom fa nga nekk ñoom ne élection deux mille dix neuf yii ba fi coow amee ci campagne bi gis neen ni état du Sénégal ñëwoon na proposé au candidat aux cinq candidats ñoom ñëpp pour ñu jox leen sécurité bi nga xam si état la jugee loolu yëpp fekk na kon kon sécurité euh, droit au candidat bi la beneen bi mooy Euh, Bassir xam nga Bassir joma Faye dafa nekk nit koo xam ne nii waa Pastef ak dëkk ak euh, Sénégal dañ ko ñeewantal dañ ko bëgg dañ ko admirer te te gis nga ni nit koo xam ne nii kenn musta ñëw taxaw wala mu nekk un homme polémiste dans ses discours dans ses propos wala ci leneen ak leneen ak leneen kon dama gis ni ñeewantal dina indi loolu beneen bi mooy te solo mooy te pour revenir sur les propos de Guy Marius Sagna uh-huh. gis nga dama ni Guy Marius Sagna buñ nekkoon ci dëkk normal heure bi mu ngi ci gërëm. bu ñu nekkoon ci dëkk bu normal Guy Marius Sagna euh, euh, Bassirou Diomaye Faye heure bii mu ci mu ngi ci këram. bu ñu nekkoon ci dëkk bu normal tey jii Bassirou Diomaye fay mais ana la la fi wax wala mu def ko wala mu posé ko ci acte wala mu dëkk ci noonu ba mu ba mu ba mu war a man a justifier wala expliquer tant de mois wala tant d'années yi nga xam ne def na ko ci kaso bi. depuis mois ci mois ci Ramadan euh, deux mille vingt trois mu ngi ci kaso bi ba tey génnul. te ñëpp xam nañ ni Diomaye c'est quelqu'un de mesuré de pondéré et de très responsable dans ses discours. man tamit may réitérer li li kii wax li li li li Guy Marius wax ne la sécurité de Bassirou Diomaye Faye est entre les mains de Sénégal tout ce qui arrivera en détention sera de la responsabilité unique et entière de ceux qui l'ont mis là-bas ma wax ni Bassirou Diomaye Faye dafa war a génn ci kaso bi nu mu gën a gaawee dem mm. saafoon teg Sénégalais yi dagaan baatu askan yi conformément à la loi. ba ñu jox ak xam ak yelleefam ba nga xam ne au soir du vingt cinq février Sénégal yi dinañu wane kóolute gi ñu am ci moom effectivement Bassirou Diomaye fii mérité na ko. mais naka ngeen fas yéene def ak euh, fichier bi. Euh, fichier électoral bi ne dafa am problème ba 900000 euh, personnes yoo xam ne war nañ cee gis seen bopp gisuñu leen ci naka ngeen fas yéene defee boobu fichier wala sax da ngeen di fexe nu élection yi poussé ba ñu mën a defar fichier bi. lan ngeen fas yéene côté rapport élection moom loolu bokkul ci sunu calendrier bokkul ci sunu ci ordre du jour. loolu damaa bëgg ñu teel ko xam. mais rapport élection bokkul ci la ñuy waxtaanee bokkul ci li nga xamante ni dañ ko teg sur la table bu waxtaan. maanaam élection lañ jëm ñun incha allahu. képp kuy wax waxi rapport la wax yow la engagé engagé wu ñu loolu damaa bëgg mu leer. ñaareel ba wàllum fichier bi yaakaar naa li Sénégalais yëpp nga xam ne témoin lañ ci mooy ñun opposition sonn nañ pour wax joxoñ fichier bi. li nga xamante ni moo ca nekk pour ñu xam lan la effectivement avant les parrainages comme au moment di contrôle du parrainage te gis nga ni tey le temps nous a donné raison parce que jamono ji ñu koy wax ñu bëri dégluwuñ ñu da mu demee ba mu dal seen kaw lañ doon comprendre li ñu doon wax ne kat en réalité lii la woon. Mhm. te gis nga tey jii li mu créé si ay bari na trop trop trop trop. Mhm. loolu Sénégal yëpp xam nañ ko léegi nag dinañ continuer di xeex politiquement lépp lu ñu politique may. lépp lu ñu liberté may lépp lu ñu loi may dinañ ci taxaw pour faire respecter les aspirations des Sénégalais mooy fichier bi dinañ ñu ko jox. conformément à la loi et puis nous exigeons à ce qu'on donne le bon fichier actualisé tenant compte des nouvelles inscriptions et des modifications. tenant compte également des radiations yi nga xam ni c'est les c'est les électeurs qui sont décédés boobu fichier actualisé. si daal ñun boobu fichier lañ soxla te dinañ xeex ba ñu mettre à notre disposition gis ngeen ni tamit candidat de l' opposition yi ils ont écrit des correspondances par rapport aux observateurs internationaux aux instances internationales pour ñu bàyyi xel li nga xamante ni mooy yar Sénégal mu ngi tiim Sénégal muy lëndëm ak muy ay incertitudes yoo xamante ni kenn gis nañ ni kenn muccagu ci loolu tamit dinañ ci taxaw li ñu ko loi maye pour Macky Sall encore une fois ñu xamante ne que Sénégal moo moo ko di fi bàyyi comme ni ñu fi jiitu dañ ko fi ñu ko jël ñu li ko dénk woon ñu xëy bàyyi ka fi boobu Sénégal dinañ fexe ba buy génne ci loxo Macky Sall du nekk dans l'abîme dinañ fexe muy Sénégal gu ñëw Sénégal gu dëgër ci démocratie ak ci liberté te ñun loolu la ñuy xeex pour ñu am ko. c'est un c'est des combats de principe c'est des combats même de faire respecter la dignité du Sénégal la dignité de l'image du Sénégal la dignité du peuple sénégalais combat yooyu lépp lu mu laaj ci taxawaay dinañ ba ñu wanee ni il faut que ñu penser aux généra penser il faut ñu penser à la postérité parce que ñun lii ñuy xeex jamono ji xaj yàlla ku ci nekk dénk na la teraanga goo xam ne boo toogoon sa petit coin mën ngaa joxe di joxe day ndekki añ reer mais loolu doyul parce bu ñu xoolee suñu doom yi am juróomi at am juróom benni at war a am tout un avenir d'ici trente ans il faut que tamit ñu préparer seen legg il faut ñu préparer leen li nga xamante ne mooy seen héritage te loolu mi ci dignité ci droit ci valeur ak leneen ak leneen ak leneen ba nga xamante ni lu réew mi war a jariñoo ci ay ressources demain tey ji bu koy jariñoo dina nekk dans la transparence au grand bonheur du peuple sénégalais. jërëjëf maître Abdoulaye Tall gërëm nañu la sant nañ la baax a baax bàyyi la nga tàggatoo ak internet yu Walf TV. waaw maa ngi leen di gërëm yéen tamit di rafetlu seen plateau boobu gis nañ si jàngat mooy yéen a ngi wax ci sujet yu ñu war a wax yéen a ngi wax ci actualité yéen a ngi wax li nga xam ne moo intéressé sénégalais yi moo war a intéressé peuple sénégalais waaye tamit yéen a ngi wax ci loo xamante ni nii sunu kanam la nekk te ñun ñëpp dañ cee war a taxaw defaru ci àllu ci pour balaa ñooy agsi si loo xamante ni ñun ñëpp dinañ ni ah lii bett bett nañu taxawaay boobu ngeen am nag maa ngi ñaan yàlla yàlla gën a dëgëral seen taxawaay parce que li ngeen taxaw am na solo trop tey jii presse li tax ñu koy tuddee quatrième pouvoir c'est parce que taxawaayu presse si dëkk boo xam ne dëkku démocratie la mooy lii fexe ba sénégalais yi éveillé wu fexe ba jox nit ñi la parole pour ñuy wax li nga xam ne moo ne seen dënn ak seen xol ngeen fexe ba li nga xam ne ñi nga xamante ni amuñu boobu occasion di déglu fexe ba ñeneen i borom xam-xam dugg ci seen i plateforme dugg ci seen i débat pour mën wax ak ñooñu noonu ñi nga xam ñu nga ba fongale mi ñu ngi ba màkk ak kuliban tàng te amuñu privilège bi nga xam ne ñeen ñi am nañ ko. man leen di ñaanal di leen di leen wax rek nii kese la continuer leen ci ba yàlla gën leen a dooleel. asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. amin jërëjëf mu doonoon maître Abdoulaye Tall comme ni ñu ko xamee. Mm-hmm. bu euh, Pastef moom tam ñu ngi koy gërëm di ko sant ndax saa bu ñu ko soxlaa rek. Mm-hmm. daanaka daf ñu koy yombalal. Mm-hmm. te loolu aussi daf cee baax comme ni mu ko waxee nag. Euh, Walfadjri Walfadjri ñëpp